ziyaare lii ni ñaanal jàmm ñaan sëñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi ñaan sëñ Mbay Lonko itam ndax am ñu fayam ndax lu baax lu ne mi ngi ciy dugal ba fi ñëwee si koñ ba nëgëni ma ne fi la ma fekkoon waaye ma fekkee ba nëgëni lu baax rek la ñuy dugal di ko ñaanal nag taxawaayam yàgg ak njabootam ak mboolem waa koñ bi yëpp ndax koñ bi koo woo mu wuy la heure bu ñu wootee dina wuy si ndax aussi nag ñoo ngi ñaanal yàlla na ko yàlla yàggal ndaxte nag ku la dikk añ dig la reer jox la reer bu la diggee léegi da nga ko ndax gis nañ taxawaayam ci koñ bi ndax suñu roq bi sori na roqe na te lu baax la ñu indi ñu ko fi ñoo yàlla yàggal ko fi ak sëñ Mbaye Longoor nga xam ne ci koñ bi ñaanal waa koñ bi yëpp ci moom muy Abdoulaye waaw ndax nit moom bu jógee man fa mu dal rek mu fa la ma neexe sama baatu démb mooy sama baatu tey mu ca sañ Fallou muy ca Côte d'Ivoire ca ca bisub sëñ Touba bu mu fa def barki démb Grand sa dama kaa gisee sama xol bi sedd guy may ñaan na loolee mu fa def yàlla na ko suñ borom kàttanal mu di ko def ci ay këri diine yëpp yëpp yëpp bu paree nag suñu borom may koo tam yan boo nga xamante si ni dana oyof ci moom mu gagné lii ñuy xëccoo nga xam ne boobaa suñ koñ bi dana avancé Touba gépp avancé ndax ki jóg moom di la woo di raam di la bokk bu amee oto dana la ca am nañ yaakaar ne ni ñu gisee taxawaayam ak ni mu jógewut si suñ koñ bi dana ñu jàppale may ñaan na yàlla na ko yàlla jàppale ba li muy xëccoo mu jot ñun itam ñu jàppale ko te yàlla tax xam ni xëcc dafa metti dañu jàpp bu të xëcc da ngay xëcc jàpp bu të dakk mooy tax nga egg fa nga jëm nan jàpp na tëw a bàyyi surtout ment ñun jigéen ndax jigéen ñi itam ñooy dooleel góor ñi suñ daante yi bu buñ ko iñaane kenn ku taxaw góor ñoo jàppale bëgg na ñu jàppale docteur Sylla mi ak doomam jir Ablaye Sylla mu dem ca kanam li muy xëccoo mu jot ko ci barkeb sëñ Touba ci barkeb sëñ Fallou Mbacké di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam nag yal nañu ko yàlla defal ak sama sëriñ bu baax yal na ko yàlla defal jàmm kuréel gi seen kuréel lay doon ndax amaana mag ñi seen wàllu wéy na ba pare jeunes yi nga xamante ne ki ñoo fi des jeunesse bi ñoo war a mën a jàpp ci liggéeyu koñ bi surtout tamit bu ñu amee ay part ay partenaires yoo xamante ne pare nañ pour def lépp pour war a mën a jàppale jeunes yi jàppale koñ bi kon loolee tamit doonutoon ay kàddu yoo xamante ne faaw ñu sànni ko ci ba mbooloo mi xam ne koñ bi suñu koñ la taxawal ay kuréel mooy tax koñ yi jëm ca kanam. kon ñi nga fi gis ñu avancé yëpp ay ay ndaw ñoo jóg volontaire taxawul seen ay kuréelu bopp te ñooñee xëy na amuñu kenn ku leen jàppale kon ñun bu yàlla defee ñu am ñu ñu mën a jàppale li ñuy def mooy fexe ba loolee mën a àndu. kuréel gi ñu bëgg a taxawal te yaakaar naa ni ñor na jot na ñëpp ñëpp ñëw bindu ci bokk ci bokk benn jëmukaay. kon ñu xam ne ñëpp war nañ ci mën a ànd comme li fi suñu yaay booy wax tamit léegi tamit muy ah, muy ki wax ju am solo ndax kenn ku ne xam na ni li fekk bokkuñu ci kuréel li fekk taxawu li fekk maanaam taxawluñu ay ndaw doon benn li ñu bëgg duñ ko mën a am leen rek moo ñu ko mën a may mooy ñu booloo te itamit seen teewaay bii du teewaayu politique encore tamit une ñu ñu fàttali ko mbooloo mi du teewaayu politique ñëw pour former bureau la taxawal bureau def benn assemblée général lépp la nga xamante ne tippee na ci ñu jël ko jéppal jël PV bi jëppal ko ki nga xamante ne moo leen fi yabal ak tamit papaam jee toog nee nda yaakaar naa ne tamit su boobaa ci loolu lay mën a sukkandiku pour la nga xamante ne mooy wàllum finance ba nga xamante ne boobu boobu ba léegi ñu ngi koy dégg ne dina ko indi ci moom la war a mën a tippee war a ñëw te pour loolee mën a ñëwit faaw ñu booloo nekk benn te si biir booloo bi mooy la tamit mooy mooy mooy la wax léegi rek lépp dafa war ci ay këyit ndax yaakaar naa ni moom nit ki mënoo bokk ci dara te amoo këyit wala nga mën a ne yaa ngi def dara te amoo benn këyit lu koy firnde déedéet mm. association la ñuy taxawal former bureau def président vice président et cetera nga xam ne lépp day mat jël benn PV jéem a def li nga xamante ne ñoo fi teew ci ay mbooloo muy góor ak jigéen mag ak ndaw tey tamit képp koo xamante ni yàlla dogal liggéey bi talal nañ la loxo nga ñëw ñu ànd jàppalante xàccandoo dóorandoo ngir jëmmi koñ bi mën a avancé. ah sëñ Sylla mi nga xam ne moo fi ñëw. docteur Sylla mi nga xam ne moo fi ñëw. bëgg ñu jàppale doomam te doomam jooju yar naa yaakaar naa jar jàppale waaye nag ñoo ngi ci gànnaaw sañ Mbaye Longoor mi nga xam moom lépp lu baax rek ci gox bee ko yéene bu sañoon tey ji lépp lu baax ci Touba rek ñu ko noonu la ko kon doo ci gànnaaw sëñ Mbaye mi ak gànnaaw sëñ docteur Sylla mi ak doomam jooju nga xam ne moom moo ko jël réew mi yàlla ko yàlla bay ñoo ci ginnaaw rek. bu ne aju ñu ne ay ca bu ne fu mu wax de la du baax ñu daal ci lu baax daal jig ci rek sëñ Bay nag moom gërëm naa ko sant ko waaw ndax sëñ Bay dafa baax lool kenn mënu koo fay barke sëñ Tuubaa kenn mënu koo fay li mu nu yéene yal na ko yàlla àggale ak docteur Sylla mi nga xam ne moom doom moom booy laaj réew mi yal na ko yàlla jàppale yal na ko yàlla may réew mi yow docteur Sylla yaa may dégg maa ngi lay ñaan googu Sylla yal na yàlla jàpp gannaaw bu leen santee nag gërëm leen ci wuy si gi bu wootee bu ne rek ngeen am cawarte lool wuy si ndax xam ngeen ne liñ leen di doyee ci yéen lay delluwaat soit ñu woo leen ci yàlla wala ñu woo ci njariñal àdduna wala leen ci njariñal yàlla ba tàyyi lu jëm ci yàlla ngeen wuy si lu kawe njort naka noonu it bu ñu leen woo tey ci loo xam ne dañ leen ci siir àdduna la jëm ngeen wuy loolu maa ngi leen ci sant bu baax waaw la benn sunu maam waxoon sëñ Tuubaa rek ci taalibe yu mag ya ne ko xam na ne mëtu ay taalibe waaye noo fi ne yéen it mëtuma leen ab sëriñ waaye yéen a fi ne kon du fokk nu ànd fokk nu ànd ànd bi nag dafa jëm ci lu yéwénal suñu àdduna ak lu yéwénal suñ suñ diine tabaxal na leen jàkka defal leen école mu jëm ci wàllu àdduna lu ngi nii di leen defal association boo xam ne day jëm ci yéwénal seen àdduna président d'honneur bi nga xam ne mooy kii ngeen gis nii léegi di seen mooy jur wii di docteur Aliou Sylla nit soxna yu bëri moo leen moo leen bañ am doom day nit day docteur Touba bu fi yàgg lool waaye yàlla dogal njaboot tamit dañ ne al waladu sirru abihi doom jure mbootum bàyyee ma doom jure bàyyee moo ko fàggu doom njabootam di Ablaye Sylla ak Baye Saliou Sylla mi ngi nii di rakkam nekkal ko fi di ay leeram teraanga ñu bëgg ko bokk ak bindeef yi rawatina julli di rawatina murid yi rawatina waa Touba kon yéen ñi nga xam ne yéen a bokk ci gox bi di goxub euh, quartier Serigne Bay Longoor fii Touba Husnul Maab ci daara yi Maktabatu Nuur noo ngi leen di booleeg sunu wëllëre yii yu docteur Aliou Sylla ak njabootam ak euh, ñi nga xam ne ñooy ñi aji ñoom ñëpp te doomam jii di Abdoulaye Sylla soxla réew mi ndax yàgg naa dimbali réew mi jumaay Masaalikul Jinaan def nañ ci ñaari milliards yu tofal ci luñ xam ci lu feeñ li bokk te la nëbb Touba gi it ci kër yi sëñ Touba def na fi lu ëpp ñaari milliards ci biir Touba foofa dem rek fekk fa lu bokk ci moom màggal yi ak ak gàmm yi ku ne xam na ne kër yi diine yëpp lay taxawu ba ci suñ kër gi sax boole na ko ci kër yi muy taxawu ci màggal ak gàmm di leen yónnee ay nag yu mag ca Tiwaawoon nag Pire Njaasaan ak Cena baak rawatina Touba moo xam gàmm moo xam màggal kon loolu moom mii moo koy def jabootam ñoo koy def ci ndigalam kon loolu lu am solo la léegi nag man sama yitte du lulul lu leen dimbali ndax di dëkkee ci ab gox day yéene waa gox ba rawatina ku ñu tudd kilifa day dimbali waa gox ba yéene leen dimbal fu mu gësi ndimbal fexe bañ jot ca loolu mooy sama yéene mooy sama yitte fu ma génne maa ngi génn ngir loolu fu ma gisee lu baax it conseil ko indil kon docteur a ngi nii Baye Sall a ngi nii njaboot gaa ngi nii tey politique nag politique nañ na leer ñëpp dañ def association boo xam ne ngir suqali sunu gox ak bëgg Touba bëgg Sénégal sunum réew moo tax nuy def waaye politique na leer ñëpp taxawal association bu nu taxawoo sunu gox bi ngir bëgg Touba ak bëgg Sénégal sunum réew bañ nañ ko ba sax su association noonu lañ ko tuddee bëgg Touba bëgg Sénégal kon man daal li ma ci li ci doon sama rôle mooy woo leen ba ngeen ñëw moo woo docteur ak njabootam ne leen yéen a ngi nii kon la ngeen di doxale man naa maa seetaan léegi lu may di leen gën a encadré ngeen di gën di ànd di bennoo liggéey mais dans la main loxo ak loxo jàppante bu wér yéen ñii ngeen jàppanteeg ñoom ñu jàppanteeg yéen ñu teg leen ci yoon yoon wi ñu leen waaj a teg mooy yéen muy waaj jëm kon maa ngi jox kàddu gi mbokk yi déglu leen yéen ngeen déglu leen te jëfe seen ndigal te xam ne lu leen di dimbali rek moo tax ñu teew fi yéen asalaamaaleykum comme li ñu li ñu wax ci kuréel bi rek association bi rek pour indiwaat tuuti ay leeral rek comme xel du doy euh, comme ni ñu président Abdoulaye la wax ñu koy liggéeyee ma baaxee leen ko tuuti rek comme pour mën parce que kuréel boo koy sas li nga ci yéene ji mooy ngay atteindre say objectif objectif yi ni ñu atteindre mooy faaw ñu massifier maanaam maanaam yaatal mbir mi yaatal gi daal mooy faaw quartier bi quartier bi fii ñu fexe ba di ko animé di animé quartier bi parce que ni ñu koy animé mooy tax ñeneen ñi am an bi ñëw bëgg cee bokk maanaam di amal ay ay ay journée nga ne journée bii maanaam dañuy set setal journée bi dañuy def ay kafe waxtaan journée bii nangam nangam nangam ainsi de suite ainsi de suite noonu la ñu ko président Abdoulaye Sylla santé ñu koy def ci ci gox-goxaat yi ci quartier yi ñu nekk Touba yëpp fexe ba créé fi ay association association yooyu mbir mi li ko li koy li koy li koy li koy li koy li koy jeunes ñu influents yi mel na sëñ bële sëñ sëñ bële Ablaye Mbengue ñu fexe ak suñu Ablaye Mbengue fexe ba jox leen ay ndëgër laay ñuy mën a def seen i activité ci nañ ko bëggee femmes yi tamit am na benn femme bu fi évoqué banque yi léegi mais banques yi président Ablaye da ci am solution bu am solo ci banques yi banques yi ni ñuy lebalee ci réew mi dafa metti maanaam bu lay lebal intérêt yi ñuy teg ci say prêt yooyu noonu mënuñ ko justifier ci dara président Ablaye Sylla dafa bëgg indi ay prêt à taux maanaam dalay lay lebal lam lay lebal amul benn dërëm boo ciy teg booy fay maanaam dalay financé ngay liggéey def say activité ca nam la neexee di fixer sa bopp échéance ya ngay fay te booy fay doo ci teg dara. loolu moo gën a yomb ba moo gën banque moom di leb ah, ñu la cay tegal ay intérêt ah, ba pare di la exiger à ce que ngay fay à temps di la fay ay pénalité di wala ñu lay woo loolu bokk na ci solution yi club c cinquante pour cent de préférence nationale apporté bëgg apporté loolu nag wax dëgg yàlla ndëgër laa yi mooy yéen yéen ndox mi ak courant ñun dañ ci am ay pexe ay solution provisoire yoo xam ne nii dañu am ay citerne yoo xam ne dañ ko déployé Dakar di xool gox-goxaat yi nga xam ne nii ñoo am jafe-jafey ndox ñu leen di ñëw di leen assister di ñëw di leen indil ndox de façon permanente saa yu ñu ko soxlaa ñu indi leen ko parce que am na ci leen loo xam ne nii wàllum ndox mi jafe-jafe yi mu am Touba am na ci yenn solu problème yoo xam ne nii mënoo ñëw rek apporte ci ay solution bu boobaa am na yenn yoo xam ne domaine état la maanaam mën nga ñëw fii ñu ne fii am na problème ndox nga commencé di def ay acte ay ay di ci poser ay acte yoo xam ne nii état bi mën na la ci interpeller te bu boobaa da ngay da da ngay tooj mais li nga xam ne ñu ngi koy yóotu lu bokk ak lii ñu ngi koy yóotu ñaan ci yàlla suñu borom président Abdoulaye Sylla jot ci li muy yóotu rek di ngeen xam ne parce que jafe-jafe Touba metti na lool loolu ci mbaaxam dafa déployer ay citernam jëlee ko Dakar di ñëw di assister quartier yi Touba yi nga xam ne dañoo am problème ndox. biñ ko tàmbalee def ak léegi toll na ci une semaine ñii duñ ma bàyyi ma fen citerne yi ñu ngi foofu ci kër ga. problématique wu ndox bi fii dinañ dinañ répertorier fii ci quartier yi ñu ci am problème mu ndox ñu fexe ba citerne bi di fi ñëw di leen ravitailler incha allahu rabbi yooyu bokk na ci solution yeneen yi éclairage public bi ñu ngi woon di ci wéyal. dañuy am ay lampadaires yoo xam ne dañ koy jël di ko monter ci poto yi poto yi nga xam ne am nañ courant jël leen jël ko monter côté Tindodi bi ak côté Looyeen beeg yooyu yëpp foofu ak Nindi fépp foo xam ne nii amoon na fa amoon nañ jafe-jafe éclairage publique wax dëgg yàlla président Ablaye la à travers le club C50 pour cent de préférence nationale apporté na ay solutions yu mat sëkk ba tax na fii incha allahu rabbi ñu ngi préparé ak équipe ñun kenn waruñu cee njëkk loolu suñu doomu réew suñu doomu dëkk suñu mbokk taalibe moo ko taxawal ñun ñëpp dañ cee war a am taxawaay ku nekk fa nga nekk dañ caa war a jàpp bu mu dëgër nga xëj ndaxte yeneen doom yeneen doomu dëkk yëpp ñu ngay jéem a góorgóorlu ci seenu dëkk di jàppale seen doom yéen nga lawaay bu leen ci kenn jiitu tamit bu leen ci kenn mën mbir mi fi mu nii xam nga fan la toll ci jeexaat la toll nañ ci xar suñu tànk tubéy parce que lii ngëneel kese la wax dëgg yàlla ñu ngi leen ciy woote di jàppale bu baax a baax a baax après bu ñu taxawalee bureau bi xool nan lañ koy organiser commencé def ay journée wax dëgg yàlla di gisante di di rencontré wu di sottante ay xalaat jàppalante nag jàppale leen yéen ndaw ñi ak yéen jigéen ñi parce que soxla ngeen ko wax dëgg yàlla foofu la président si laa nekk foofu la taxaw. ci wàllu asalaamaaleykum wa rahmatullah.